Abdou Samad Diouf bonjour maa lay nuyu. maa soxna si. alors ngay coordonnateur ou plateforme euh, acteur yi nga xamante ne ñoo yëngatu nag ci lépp luy xeex euh, wàllum inondation ONAS ñu gis ne jël na devant yi ngir rek mën a tamit fexe ba anticipation euh, bi jëm ci mbir boobile ñu taxaw ci fii ci Sénégal lan nga ko gisee. waaw soxna wa maa ngi lay nuyu di leen jaajëfal ci invitation bi. aussi di rafetlu liggéey bu am solo bi ngeen di def si tamit euh, jàngat bu am solo bi nga xam ne def ngeen ko ci inondation donc ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax oui jërëjëf. Mm-hmm. voilà donc euh, li nga xam ne moom moo jëm ci maanaam teel a jóg bi nga xam ne comme ni nga ko waxee mooy ONAS moom la jël dafa am solo parce que li ñuy wax ne fagaru moom moo gën faju te bu fekkee ne mbir dafa nekk at bu nekk. daf lay gane donc euh, te nga xam ne saa yu ñëwee bu ñëwee la muy indaale boo teelul jóg mën na jur ay jafe-jafe kon nag day war yow mi nga xam ne yow lañ ko dénk nga fexe def ay pexe teel a jël ay matuwaay ba nga xam ne gan googu bu ñëwee bu ñëwee aussi mu ñëw ñëw jàmm baña indi benn loraange moo tax euh, teel bi nga xam ne nguur gi ak ONAS teel nañ ko jóg dafa nekk loo xam ne am na solo parce que man maa ngi woon ci ci opération pré hivernal bi le treize mars passé euh, de passage ñu ciy nuyu ki nga xam ne mooy euh, DG bi fi nekkoon di Mamour Diallo mu def liggéey bu am solo ci ONAS donc euh, ñu ko ci gërëm di ko ci sant waaw mais daal li ma la mën a xamal mooy que ne teel a jóg bi wax dëgg lu ñu rafetlu la lu am solo la te yaakaar naa taxawaay bi bu ñu ko gënee baral yaakaar na mën na jur jàmm ci askan bi. ñu gis ne loolu dafay gën di bëri rawatina fa nga xamante ne nag mooy Kër Massar euh, ban jàngat nga ci am ci mesures yi nga xamante ne war nañ koo mën a jël la ngir moytu lu ni mel. waaw xam nga tey jàngat bi mooy inondation dafa nekk un phénomène naturel loo xam ne suñu borom moo ko moo ko moo ko teg askan bi mais la koy saafara dafa nekk loo xam ne ci ñun la war a jógee ñun askan bi su ma nee askan bi nag état moo ci jiitu population bi ànd ci ak ñoom wax nga li nga xam ne moo nekk zone Kër Massar ndax bu ñuy wax inondation ci Sénégal Kër masaar bokk na ci dëkk yi gën a am jafe-jafe ci wàllu inondation mais nag bu ñu waxee dëgg aussi am na ay jéego yu am solo yoo xam ne état bi def na ko fa parce que boo xoolee ci at yi wees ci jafe-jafe yi nga xam ne da daan am biir Kër Massar wax dëgg moo neex yàlla lépp nag yembagul mais am na ay jéego yoo xam ne wax dëgg def nañ ko parce que am na projet yoo xam ne ADM mu nga fa euh, di ci liggéey boo xoolee zone yu bari ñu ngi ci ay ñu ngi tafar euh, ay bassin di fexe di defar ay canalisation ay ouvrage yoo xam ne daal wax dëgg moo neex yàlla wàññi na lu baree baree bari ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko doon dund ci Kër Massar bo xoolee jamono yi at yi wees dañ daan wax waxu Camille Bass mais fi ñu toll nekkatul euh, euh, vieille souvenir la voilà donc moo tax ma ne euh, waxuma nag ne lépp yemb na le problème n'est pas totalement réglé mais aussi il faut le reconnaître il y a des avancées significatives mmh. donc moo tax ma ne Kër Massar ak yeneen yo yeneen gox yoo xam ne tey ñu ngi ci réew mi am na ay zone yoo xam ne ñu ngi woon ci ay jafe-jafe mais am na ay ay ay avancées yoo xam ne wax dëgg moo neex yàlla ñun fu ne la ñuy dem réew mi zone yi gën a am problème ci wàllu inondation dañ fay dem di saytu di xool lan mooy jafe-jafe askan bi li état bi def ak li nga xam ne defu ko donc loolu moom wax dëgg moo neex yàlla ñu ngi ci am taxawaay bu am solo pour xool mais boo ma waxee ne Kër Massar ña fa dëkk sax wax dëgg xam nañ ne am na ay jéego. Mm-hmm. njiitu réew mi fi nekkoon nag euh, jotoon naa annoncé ab benn plan d'urgence muy programme urgence euh, bi jëm ci ni ñuy yoree ndox mi rawatina taw yu bëri yi nga xam te ne léeg-léeg mooy indi euh, inondation bi def ko nag ci lu toll ak fukki milliards juróom ci suñu koppar ndax loolee jot naa faj dara. waa xam nga programme décennal bi bi nguur gi Macky Sall lu ñëwee ci réew mi en 2013 dañoo créé benn ministère tuddee ko ministère chargé des inondations restitution de requalification de la banlieue euh, mais xëy na am na ay jéego comme ni ma la ko waxee du ma wax rek ne plan décennal bi amul ay ay ay ay résultats mais dañu ne xëy na taux d'exécution bi foofu la coow li nekk ndax li ñu wax ci taux d'exécution bi ndax loolu am na wala amul man yàgg naa ne euh, si taux d'exécution bi am na ci loo xam ne man d'accorduma ci parce que tey boo xoolee ci ci ci réew mi li ñu jot a dépensé muy presque sept cent milliards jàpp naa ne su nekkoon ne jaar na yoon dëgg-dëgg ba mu war a jaar xëy na am na ci résultat bi ñu jot a am mën nañ am lu ko ëpp mais nag terewul ci at yi wees parce que man bi ma man yàlla def na bokk naa ci ñi mos a xelal njiiti réew mi bi mu tasee ministère inondation dafa indi woon ay sooxe sooxe ci wàllu inondation moo taxoon ma nañu gën a renforcer li nga xam ne moom mooy problème inondation ba ci la indi woon sax ministère chargé de la prévention et gestion des inondations donc pour mu am liggéey boo xam ne pour ñu jël suñuy matuwaay avant nawet di door a ñëw donc loolu euh, tamit dama wax ne état bi am na ci ay zone yoo xam ne wax dëgg am na fa dafa soxe loolu moom il faut ñu nangu ko mais du tere aussi ñu ne am na ay zone yoo xam ne connaissant la problème des inondations soo demee dëkk yu mel ni dans le département de Pikine na xool ji de Thiaroye kaw ni mu meloon na xooloon euh, ginnaaw raay nord ginnaaw raay sud na mu meloon nga ñëw dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao nga xam ne ay jéego parce que tey mun naa la jox rek exemple fi nga xam ne mooy la commune de Diamaguène Sicap Mbao hmm. boo ñëwee APIX am na fi ay projet yoo xam ne mi ngi nekk en cours d'exécution defar nañ fi ay bassin la bassin de de de de de de Médina Marène le bassin de Nasrullah le bassin de Samsam tey boo xoolee ak daaw problème yi daan am amuñu ko fi ñu toll nii parce que fi ñu toll nii napp bi commencé na di di di di ñu koy rabaat da ngay am sax sa oto léegi dugg biir Samsam di ngiiroo te loolu la ko indi mooy liggéey bi nga xam ne liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def ci lu jëm ci wàllu inondation boo ñëwee fu jëm ci talimaam jaara gis nañu taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy am donte nag tali bi defaraguñu ko. mais ñu ngi defar ay canalisation yoo xam ne te bu paree dañuy jublu ci mbiru tali bi boo demee fu mel ni tali ab Abdou Ndiaye nga xool projet bi mi ngi en cours yaakaar naa sax du yàgg dara danañu tàmbali li nga xam ne moom moo des pour que mu dem directement au niveau de de marché Diamaguène dem route nationale ñu def euh, connexion bi ñu am foofu loolu yëpp boo ko defee jàngat mën na wax ne wax dëgg am na ay jéego mais nag waxuma ne lëpp mat na parce que boo xoolee am na zone yoo xam ne réglé nañ seeni problème pour l'instant à quatre-vingt pour cent mais boo xoolee tey inondation dafa commencé transiter di dem ci yeneen gox yu mel ni Bambilor dans le département de Rufisque dem ay ay Jamweli euh, dem ay euh, Almadies 2 zone yooyu commencé nañu di am problème te loolu yëpp li ko indi mooy li ma wax sànq ci nasaraan mooy que ne dafa am ñoo xam ne ci au moment que nit ñi di xeex inondation ñoom la leen ñor mooy utub koppar looloo waral nga gis ay promoteur immobilier yoo xam ne dañuy ñëw di tabax sans respecter li nga xam ne moom mooy les normes de de de la de l'assainissement te loolu nag y a la responsabilité de certains de nos autorités administratives et locales mooy les maires parce que mënuma comprendre de 2005 bi nga xamee ne Ablaye Wade ñëw na mbir mi berti ñu ñu créer ay plan jaxaay Macky Sall ñëw créé ay tawféex yaakaar ñu déplacé des familles jël leen def ay remembrement def ay ouvrage kon waratuñ woon nangu ci réew mi fenn actuellement ñu fay tabax sans respecter li nga xam ne mooy les normes de l'assainissement loolu bokk na ci li ñuy indi jafe-jafe tey parce que zone yi commencé am problème ndox yëpp soo ko xoolee la ca biir la ca biir nekkatul euh, problème mu phénomène naturel mais dañoo ñëw tabax ci ay zone yoo xam ne euh, kenn waru fa tabax wala boo demee ba di fa tabax da nga war a dafa war a accompagner avec de l' assainissement loolu nag ay problème la mhm. loolu moo tax ma ne nag ak nguur gu bees bi ak le programme du PIGIS nga xam ne tey la DPG yi moom moo koy piloté euh, ñu xool naka la ñuy mën a def associé DESCOS ci problème boobu noonu ba nga xam ne bépp promoteur boo xam ne danga jogati di tabax te respecté woo li nga xam ne mooy les normes de l' assainissement maanaam ñu sanctionné la yoon dal sa kaw. très bien ah. Abdou Samad Diouf euh, jërëjëf euh, may fàttali rek ne yow yaay coordonnateur plateforme acteurs yi nga xam te ne ñoo xeex mm-hmm. lépp lu jëm ci wàllum inondation ñu ngi lay mm-hmm. jaajëfal bu baax a baax. voilà merci beaucoup jërëjëf.